bureau de vote mooy amoo carte Guédiawaye euh, ñu fekk fi président Maguette Mbow di ko nuyu président ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay bu baax. Euh, mu mel ni bi élection yi tàmbalee ba léegi ak journée de vote bi gisaguñ fi problème mu majeur lan nga ñu mën a wax tey ci bisu vote bi rek. non li nga xam ne moom lañ fi gis. Mhm. gis nañ ne lépp passé na ci jàmm ak salaam. Mhm. te loolu mooy li war a am. Mhm. ndax ñun ñi xëccoo ñëpp. noo bokk lenn lu ñu bëgg. noo bekk fenn fu nu jëm ay nag kenn naan yoon wi laa war a jaar kii na yoon wi laa war a jaar waaye fu ñu jëm benn la lu ci manti xew ak lu heure ñu mën a génne nan koy respecté ba noppi te àndandoo nag xeexal suñu secteur parce que amul lu ma suñu secteur ñu wote rek ci kaw daal ak jàmm ak salaam waaye nag dem nag ci unité aussi après après les élections nu àndandoo nekk benn parce que problème yi at naa bari na te benn équipe mënu koo xeex ñëppay àndandoo pour xeex ko groupe bi ak groupe bi benn groupe la parce que noo bokk lu ñu bëgg noo bokk lu ñu bañ te li nga xam ne si ne moom la ñuy wut buñ ko amee itam dañ koy àndandoo rek bokk ko def waaw ah, waaw jërëjëf jërëjëf président jërëjëf merci beaucoup ah, ah, ni yow yaay candidat wu liste jaune bi tey ñu ñëw fekk la fii ci ci ci ci centre de vote bu amoo kat Euh, suba ba léegi yeen nañ fi lan nga ñuy wax tay ban problème majeur ngeen fi jànkonteel ak lan ngay wax électeur électeurs yi. waaw asalaamaaleykum mbokku assalamu alaykum mbokk Sénégal euh ñoo ngi fi ci centre de vote Géejawaay amo 4 fois amo 4 bi depuis ci matin le matin ba léegi ñu ngi fi yeen a gis li mu demee donc le camp sortant euh, li fi am gis ngeen ko donc ñew nañ fi yor seeni liste yor seeni numéro téléphone di wo ay nit ci souf te beneen bi ci bi nga xam ne moom lañ gën a naqarlu mooy carte bii ma yore gis ngeen ko yéen a ngi gis yi ñu def ci band bu bula bande bu bleu mooy aar yéen a ngi gis fii ñu bind ci transformatrice alors que transformatrice production la lii xam nga ne nekk na loo xam ne c'est scandale te président sortant bi ak équipe bi mu àndal ñoom ñoo ko def dem nañ léegi gouverneur woo yóbbul nañ ko lu mat 15 cartes yoo xam ne seen tur mi ngi ci liste bi te nekkuñu ci bureau de vote bi nga xam ne foofu lañ leen euh, yóbbu donc mu nekk loo xam ne vraiment dafa ruslu dafa ñaawlu te yaakaar naa ne gouvernement Sénégal war na cee jël ay responsabilités parce que ñun du ñu nekk ay artisans ay nit yoo xam ne am nañ ay quatre-vingt-sept ans ay quatre-vingt-dix ans amuñu benn légitimité jël chambre de métier bi familialiser ko alors que li nga xam ne mooy àq ak yelleefu artisans yi joxuñu leen ko donc loolu nekk na lu ñaaw loo xam ne ñu ngi koy ñaawlu ñu ngi koy déplorer te vraiment suñu sañoon autorité yi nga xam ne ñoom ñoo ñu féete kaw ñu jël ci ay responsabilité nañu nangu fichier bi ci loxow chambre de métier parce que munoo nekk un juge ba pare am parti munoo mënul loolu mënul nekk mënul nekk donc lii rek wane na ne ñoom wax dëgg yàlla ay cuune lan mënuñu yor chambre de métier élection yi nag ñi ngi ñaan yal na yàlla terminer ko ci jàmm yàlla jox ñu ndam ñi mais bu ñu yàlla joxee ndam li suñu procès phare mooy fexe ba kart yi nga xam ne ak njubla nga ngi ji te wax nañ ko gouverneur xam na ko constaté na ko ñu loolu bokk na ci li ñuy njëkk a réglé incha allahu rabbi donc ñi ngi fii nag duñu leen may dara ñi ngi fii fii ba bureau yi di tëj lépp loo xam ne constaté nañ ko te nekkul yoon dinañ ko bind jox ko gouverneur bi nga xam ne moom la état bi teg élection yi ci loxoom pour mu war koo organiser voilà.